يسمني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñëpp. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp. di siyaare ñëpp teewlu di teewlu ndax bis bu mag bi ñu jëm ndax bis bu mag bis bu mag jëm nu gàttandiku bu baax a baax ci gën cee yeesal nag sunu lépp gën cee dëgëral sunu lépp mu ne bis bu màgg bu rëy mi ngi ci kanam boo xam ne sant rek ñu ci war cant gi ñu ngi koy tàmbalee ci sant sëriñ bi santale ko santale ko sëriñ bi moom sëriñ bi moom wàccoo naag njaboot gépp lu mat a def rek def na ko lu mat a def rek def na ko diggante njaboot gi lu mat a wax wax na ko diggam ak njaboot gi wàccoo nag ñi mu seqal boromam ñëpp wàccoo yàlla yi ñi mu seqal boromam ñëpp di yàlla muy malaayka yi ak yonent ak kilifa ya topp ci ñoom ak ya ñi nga xam ne yàlla jox na leen xam-xam ñuy jëfe seen xam-xam ñi mu bokkal boromam yëpp wàccoon ak ñoom kon nun eh, sunu borom daf noo defal tawfeex ju rëy rëy ndax boole gi mu boole moom loolu nag war naa tax sëñ bi bu ñu meloon ni mu mel diggam ak boroomam la sunu so la soob sunu borom mu def ko ci moom loo xam ne xel mënu koo dab wëlbati ko waat fabaat léppam delloo ko borom wàccoog ñëpp ña fa borom ne fa borom kon nag war nañoo seetaat sunu bopp bu baax ndax tawfeex ju rëy jooju ñu am ak lu ñu lot lot lot jéem koo delloo suñu lépp jéem koo delloo suñu lépp loolu nag loolu nag laaj na jëfe laaj na jëfe laaj na jëfe yi tàmbalee ko ci leeral xel yi nañ war gisee sëriñ bi nañ niñ war a gisee sëriñ bi sellal xol yi. sellal xol yi. ci nañ war a mën a bi. ci nañ war a mën a àndeeg sëriñ bi. yokk yitte yi. yokk yitte yi. ca na ware ca na ware am na kàddu yu ma daan junj ci jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. am na kàddu yu ma daan junj ci jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. ci wàllu dëkk bi. waaw ci wàllu dëkk bi. ñi am tawféex ak dëkk ak sëriñ bi. ak ñi am tawféex ak sëriñ bi. ak ñi am tawféex yaakaar sëriñ bi. di fi ñëw di fi ñëw. loolu nag ñaar rek ku seq. loolu nag ñaar rek ku seq. ci wàllu doxinu adduna. ci wàllu ñi nga xam ne ñoo fi dëkk. ñi ci ñi nga xam ne ñoo fi dëkk. war nañoo mën a doyloo sëriñ bi ci lépp. war nañoo mën a doyloo sëriñ bi ci lépp. wëlbatiku it nekkal ko. wëlbatiku it nekkal ko. luñ ca néew néew néew doole. luñ ca néew néew doole. ñu def ci seen lépp ñu def ci seen lépp. nekkal sëriñ bi ni mu ko ni li taxoon mu ñëw fii. nekkal sëriñ bi ci li taxoon mu ñëw fii. ñooy ñi loolu ñooy ñooy ñi fi ñi am tawféex dëkk dëkk dëkk ak sëriñ bi. loolu ñooy mooy ñi nga xam ne am nañ tawféex yi dëkk ak sëriñ bi. muy waa dëkk bi muy waa dëkk bi. ak ñi nga xam ne dañoo dëkkuñu ci biir dëkk bi. ak ñi nga xam ne dëkkuñu ci biir dëkk bi. tey dox yi dox yi àdduna. tey dox dox yi àdduna. ñoom it dara warul leen. ñoom it dara warul leen. lu doyloo sëñ bi lu sëñ bi. sëñ bi rek moo leen fi war a andi. sëñ bi rek moo leen fi war a andi. nee na mas koo wax ci jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. boobu euh, président Macky Sall mi ngi toog. mu ne ko fii. mu ne ko fii. kenn jëflewuñu fi kenn ku dul fii kenn jëflewuñu fi kenn jëflante wu fi kenn ku dul sëñ bi. kon ñaar ñooñu rek fi nekk. kon ñaar ñooñu rek fi nekk. ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo dëkk ci dëkk bi. ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. ak ñi nga xam ne ñooy wut wut ci dëkk bi. ak ñi nga xam ne dañuy wut si ak wàllu ci dëkk bi. loolu nag mën nañu ñëpp nag mooy mën nañu ko delloowaat ci doxinu adduna. loolu lépp nag mën nañu ko delloowaat ci doxinu adduna. kon ñi fi nekk. kon ñi fi ne. dañoo war a doyloo sëñ bi. dañoo war a doyloo sëñ bi rek. waruñoo jéggaani fenn. waruñoo jéggaani fenn dara. Eh, eh, ku fi nekk. ku fi nekk. te góorgóorlu bu baax te bu baax. nekk nekkal fi sëriñ bi. nekkal fi sëriñ bi. ni ko bëgge ni mu ko bëggee. mu waree noonu. mu waree noonu. fa tabaarakallaahu. fa sa tawfeex ji nga am. sa tawfeex ji ngay am. bay tudd sëriñ bi ñu dul tudd. bay tudd sëriñ bi ñu dul tudd. tawfeex joojee. tawfeex joojee. kanam rek lay jëm kanam rek lay jëm. adduna bari nay gàllankoor lool adduna bari nay gàllankoor lool. bari nay fitna lool bari nay fitna lool. teq-teq bari nay teq-teq lool jafe bari nay jafe-jafe lool lépp ngi ci biir doxinu àdduna lépp nag mi ngi ci biir doxinu àdduna lanu ciy musal nag lanu ciy musal nag nekkal sëriñ bi rek nekkal sëriñ bi rek ni mu ko bëggee woon ni mu ko bëggee woon ñu nekkee ko ni fii ñu nekkee ko fii nekkal ko fi loolu moom rek moo nu ci mën a moo ci mën a musal loolu rek moo nu ci mën a musal lu lu dul loolu bu dee ñi fi dëkk. bu dee ñi fi dëkk. war nañoo góorgóorlu bu nañoo góorgóorlu bu baax. nekkin wi nekkin wi. bu bu teguwul ci yoonu sëriñ bi. bu teguwul ci yoonu sëriñ bi. ni ko sëriñ bi bëggee bëggee. ak lu kër kër ji bari bari. ak lu kër kër ji bari bari. ñàkk barke rek la indi ñàkk barke képp la indi. ñàkk tuyaaba ñàkk tuyaaba. kon lan la ñuy musal ci loolu. ñu jéem a xam sëriñ bi. ñu jéem a xam sëriñ bi. nekkal ko ci li bëgg. nekkal ko ci li mu sëñ bi nag amul bëgg. sëñ amut ak bëgg. boromam rek la bëgg. rek la bëgg. ak yonent bi ak yonent ak yonent bi nga xamante ne moom lañ ko digal moo ko jox ndigal. nee na sunu borom nee na bind naa doom aadama ci bindin bu gën a rafet. waaye nag danaa ko dellawaat mu gën a suufe lool ba mel ni noonu musu koo mel. nan jéem a dégg loolu jéem a dégg ay jooju bu baax. loolu moo nekk. ndax loolu moo nekk. dëgg la. dëgg la. yërmande yàlla yemul fenn. Eh, yërmande yàlla yemut fen mayeeg sëñ bi yemut fen mayeeg sëñ bi yemut fenn. waaye loolu la yàlla wax. waaye nag loolu yi la yàlla wax. buñ góorgóorloo. buñ góorgóorloo. dañuy dolli ku di wéy. dañuy dolli di wéy. mu mu gën a mate. na mu gën a mate. buñ góorgóorluwul. buñ góorgóorluwul. dañuy dellu gannaaw di dañuy dañuy dellu gannaaw di gën a suufe rek. loolu doomu aadama yëpp ko loolu doomu aadama yëpp ñoo ko bokk. kenn ëpp nu ci wàll. waaye kenn ëpp nu ci wàll nag. ndax sëriñ bee tax ndax sëriñ bee tax. na mu doxee diggante ak boroomam. na mu doxee diggante ak boroomam. jëflante kook ñi mu seqal boroomam ñëpp. jëflante koog ñi mu seqal boroomam ñëpp. ñëpp mu wàcc ñoom ñëpp mu ñoom. dox leen seen àq yi ba mu mat sëkk. dox leen seen àq ba mu mat sëkk. mu dellu ci fa boroomam. mu dellu fa boroomam. loolu. kon loolu war nañoo si xoolaat suñu bopp. waaw kon nag war nañoo xoolaat suñu bopp. dëkk bi dëkk bi. bu nu góorgóorloo bu nu góorgóorloo. nekk fi ni ko sëriñ bi nekk fi ni ko sëriñ bi bëggee. texeeg adduna ak alaaxira rek la ñuy andil. texeeg adduna ak alaaxira rek la ñuy andil. defarug biir ak rek la ñuy andil. defarug rek la ñuy andil. mucc ak tey ëllëg rek la andil. buñ ko deful nag buñ ko deful nag. lu ci waay gis. lu ci waay gis. bu mu ko bu mu ko bu xam ne moom moom na xam ne moom mooma. càggante rek la càggante rek la. kon loolu. kon loolu. kon war nañ a di ko di ko di ko di di ko di ko di waxtu wu nekk. kon loolu war nañ di ko fàttaliku waxtu wu nekk. di ko jéem a dund. di ko jé di ko jéem a dund. di jéem a nekk. di ca jéem a nekk. sunu kem kattan sunu kem kattan. yëngatu boo xam ne nag. yëngatu boo xam ne. ñàkk barke rek moo ciy mujj. ñàkk barke rek ciy mujj. ñàkk tuyaaba rek moo ciy mujj ñàkk tuyaaba rek ciy mujj. gàcce rek ciy mujj. gàcce rek ciy mujj. gàcce ak gàcce. ga gàcce ak gàcce. yéen moom rek ciy mujj. yéen rek ciy mujj. yal nañu ci yàlla musal yal nañu ci yàlla musal amiin amiin. kon nañu góorgóorlu. kon nañ góorgóorlu. lu baax ak lu bon rek fi nekk. lu baax ak lu bon képp fi nekk. góorgóorlu ci suñu kéem kattan. góorgóorlu ci suñu kéem kattan. ne ci lu baax ne ci lu baax. di wéy ci ndigal di wéy ci ndigal. suñu kéem kattan suñu kéem kattan. wattandiku tere wattandiku tere. di bëgg lu baax di bëgg lu baax. te yàlla rek tax te yàlla rek tax. di bañ lu di bañ lu bon. te yàlla rekk tax di def lu baax di def lu baax. te yàlla rek tax. loolu mooy sunu sunu warteef. loolu yi mooy sunu warteef. loolu mooy warteefu ñi nga xam ne am nañ tawféex nekk ci dëkk bi. loolu mooy warteefu ñi nga xam ne am nañ tawféex nekk ci dëkk bii. tawfeex ji tawfeex ji mën nay dolliku di wéy tawfeex ji day mën nay dolliku di wéy waaye mën nay wàññi ko ba jeex tàkk ñi nga xam ne nag dégg nañ sëriñ bi dégg nañ sëriñ bi ñi nga xam ne dégg nañ sëriñ bi ñàkkul luñ ca xam ñàkkul luñ ca xam ci doy gu sëñ bi doy sëkk doy gu sëñ bi doy sëkk doy nu doy nu tey ëllëg doy nu di fi ñëw ñooñu di fi ñëw di wut si wàll. di fi wut si wàll. fu ko wut fu ko wutee kudut sëriñ bi. fu ñu ko wutee kudut sëriñ bi. fudut ci sëriñ bi perte nañu perte nañu waaw kon ñaar yooyu rek fi nekk nag. ñi fi nekk ñi fi nekk. nañ doyloo sëriñ bi nañ doyloo sëriñ bi. nekk ci seen nekk seen diine. nekk ci seen diine. seen kem kattan seen nekk ci seen taalibe nekk ci seen bëgg lu baax. nekk ci seen bëgg lu baax. seen kem seen kem kattan. di jëfandikoo makaarimul axlaaq yi di jëfandikoo nag makaarimul axlaaq jikko yu rafet yi ak yu baax yi waaw jikko yu baax yi jikko yu baax yi mi ngi ci nun jikko yu bon mi ngi ci nun jikko yu baax yaa ngi ci nun jikko yu bon yaa ngi ci nun ñu doon jéem a góorgóorlu di xeex ak xeex jikko yu bon ñuy jéem a góorgóorlu nag di xeex ak jikko yu bon yooyu di di jéem a góorgóorlu di jëfandikoo jikko yu baax di jéem a góorgóorlu di jéem a jëfandikoo jikko yu baax yi noonu rek noonu rek moo moo moo moo nuy musal moo nuy musal moo nuy may jàmm moo nuy may jàmm mooy woyefal fitna ji mooy woyefal fitna ji. loolu buñ ci nekkee. loolu buñ ci nekkee. saadatu daarayni rek la ñuy andil. saadatu daarayni rek la ñuy andil. saadatu daarayni nag. saadatu daarayni muy texe tey ak ëllëg. ëllëg la gën a yomb ëllëg la gën a yomb. ëllëg la gën a yomb. boo amee njëg yërmande suñu borom njëgalam rek foofu mu jeex tàgg. foofu moom boo amee njëgalu suñu borom ak yërmandeem rek mu jeex. fii nag nag. da jëf dangay jëf. di jëriñu di jëriñu. ba yëg ne yaa ngi jëriñu. ba yëg ne yaa ngi jëriñu. ba yëg ne yaa ngi yaa ngi gën a mucc. ba yëg ne yaa ngi gën a ma mucc ba yëg ne yaa ngi gën a texe. ba yaa ba yëg ne yaa gën a texe. loolu ci sunu dund gii rek la nag. ku ci bëgg jàmm nag ku ci bëgg jàmm nag. bëggal sa bopp jàmm bëggal sa bopp jàmm. bëgg bëgg a noppalu. bëgg a noppalu. bëgg texe. bëgg texe. da ngay da ngay da da ngay da ngay da ngay da ngay da yoonu sëriñ bi. da ngay sóobu yoonu sëriñ bi. ngay sóobu yoonu sëriñ bi. ngay yoonu sëriñ bi. Hmm. ndax bi gisul dara. ndax sëriñ bi disul dara. lu dul borom ak yonent bi ko tegtal ak yonent bi mu ko tegtal rek. kon am na tawfeex ju rëy de. kon de am nañ tawfeex ju rëy de. mën nañoo am xéwal gu rëy nag. mën nañoo am xéwal gu rëy nag. fii ci dundug adduna gi fii ci dundug adduna gi. ak dundug alaxira gi di ñëw. kon ñun ñi fi dëkk. kon ñun ñi fi dëkk. ñu góorgóorlu bu baax. buñ góor nañ góorgóorlu bu baax. kem kattan kem kattan. alhamdulilah rabbil alamin suñu borom moom ginnaaw boo boo boo jógee. rek moom mu xas wuti la. ndax alhamdulilah rabbil bi nga xamee ne suñu borom moom. boo waaxoo jëm ci rek mu waaxu jëm si ci yow. loolu moom mooy boo jógee jëm ci moom rek mu gàttandu la. boo jógee jëm ci moom rek mu gàttandu ah, la. na jóg gi dëggu rek na jóg gi dëggu rek. na dëggu rek na dëggu rek. kon loolu mooy suñu warteef. kon loolu yi mooy suñu warteef. ku fi mën a ñëw itam. ku fi mën a ñëw itam ak fu mën a jógee. ba ñëw Touba sëñ Touba képp la fi indi. bu fi jéem a wut dara rey àdduna bu fi jéem a wut dara rey adduna. jëmale ko sëñ looy wut rek jëmale ko sëñ Tuubaa lu ko may pertement rek lu ko may pertement rek la leen eh, fi nekk doyloo sëñ kon ñi fi nekk doyloo sëñ Tuubaa ñi fi ñëw di wut si sëñ Tuubaa ñi fi ñëw di wut si sëñ Tuubaa loolu yi rek mooy jàmm ji waaw ñi fi nekk doyloo sëñ Tuubaa ñi fi dikk di wut si sëñ Tuubaa mm-hmm. rek mooy mbir mi ñun ñi fi nekk nañ doyloo sëñ Tuubaa pexe yeeg yooyu yëpp amul benn njëriñ amul ci gàcce rek la ñu xalaat xaraab maanaam dem ba nga xam ne lépp day gent rek yàqu ma di taal góorgóorlu bu baax góorgóorlu bu baax kon alhamdulilah mën nanoo dellu si kon alhamdulilah mën nanoo dellu si ci waajtaay bi ci waajtaayu bis bu mag bii di bëgg a ñëw ko nan fekk ngeen ko nan teewlu bu baax. nan teewlu bu baax. ak lun lot lot lot. ak lun bu baax jëm jëm jëm jëm jëm seen suñu lépp ci sëriñ bi. nan teewlu bu baax jëme suñu lépp ci sëriñ bi. fas yéene suñu suñu suñu yitte yëpp ñu yemale ko ci moom. fas yéene suñu yitte yëpp ñu yemale ko ci moom. jublu gépp ñu def ñu jublu mu mu mu suñu jublu. muy muy suñu jublu. suñu jublu gépp muy muy muy jublu sëriñ bi. suñu jublu gépp di muy jublu sëriñ bi. loolu dañ ko nan ko nan teewlu fii. nan teewlu fii. waajal ko waajal ko. ba bés ba agsi kenn ku ne ci nun nag. kenn ku ne ci nun nag. feeg ba feeg bis ba. képp bépp bépp taalibe. bépp taalibe. ak képp ku bëgg sëriñ Tuubaa. ak képp ku bëgg sëriñ Tuubaa. Eh, na nga na nga na nga am pasteefu. na nga am pasteefu. jàng kaamil. jàng ab kaamil. tàmbalee ko cant gi. tàmbalee ko cant gi. cant gi ñuy war a sant sëriñ cant gi ñuy war sant sëriñ Tuubaa. di ko ko santale. ak di ko ko santale. kenn ku ne. kenn ku ne. na jàng am pasteefu. na am pasteefu jàng ab kaamil. boo ko mënee boo ko mënee. tàmbalee ko cant gi tàmbalee ko cant ak cant léegi ak cant léegi ku ku ku yàlla mënoo ko ku yàlla dogal mënoo ko am na ñu ko mën ca sawet am na ñu ko man ca sawet wet nga nga seral ku la ko jàngal nga seral xol ku la ko jàngal loolu yaakaar naa ñun ñëpp loolu ñëpp mën ko mën ko def loolu defe naa yaakaar naa ñun ñëpp mën nañ ko def yomb na lool yomb na lool te jëf ju rëy la tey jëf ju rëy rëy mën naa defar lépp rek la demee kon noonu rek la demee. ñu góorgóorlu bu baax ñu baax. alhamdulilah rabbil alamin la in shakartum la azidannakum fekk yéen ngi sant rek muy dolli. Ah, mhm. kon gannaaw bis bu mag ñëw. kon nag gannaaw bis bu mag bii di ñëw. benn bis bu ko kawee. benn bis bu ko kawee. te bisu cant rek la. ndax bis cant rek la. Ah, nan ko waajal bu a baax a baax a baax. lenn luñ mën a dolli ci cant gi nag. luñ mën dolli ci cant gi nag. ci xeeti yu baax yépp ci xeeti yu baax yëpp. luñ ca mën rek ca mën rek nañ ko def. noonu rek la demee noon yi rek la deme ñoo ngi sant ñëpp nag. nee na ñoo ngi sant ñëpp nag. Eh, jaam bi moom xamee ne jaamu boromam la. jaam bi moom bi mu xamee ne jaamu boromam la. tawfeex ju toll ni bëgg sëriñ Tuubaa am tawfeex ju tol ni bëgg sëriñ Tuubaa loolu doy na lépp kon koy nu sant bu baax a baax di gën a góorgóorlu rek loolu rek fi nekk jërë ngeen jëf noonu rek la demee lépp a ci biir nan gën a yeesal sunu jaayante. gën a dëgëral sunuy laxasaay gën a dëgëral sunuy laxasaay. gën bi gën a sóobu sëriñ bi. gën koo jublu gën koo jublu. suñ lépp na jëm nañ lool suñ lépp suñ lépp na jëm foofu. loolu ci tawféex ju rëy rëy lay jógee di xéew xéewal gu rëy rëy rëy at googu àdduna ak alaxira kon nan sant yàlla te góorgóorlu rek jërë ngeen jëf baarakallah ñi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bàyyi ko sëñ kàddu gi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ci ndigalul sëriñ bi ñuy àggale tuuti ci kàddu yi rek ci ndigalam ndax boo xasee ba yëkkati kàddu passif muy waatu di waxaat ci ginnaawam kon ci ndigalam rek ak ci barkeem di ni ko sëriñ bi waxee léegi rek mooy di fàttali ñëpp bis bii nga xam ne moom lañ dëgmal mu war a dëppoog alxames fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar dëppoog fukki fan juróom ci weeru septembre bi sëriñ bi mi ngi koy fàttali bokk jullit yëpp di ko fàttali bokk taalibe bi yëpp di xam ne ndigalu sëriñ Tuubaa la loo xam ne moo waxoon ne na ko ci ñëpp sant la yàlla muy loo ne moo ko daan def santoon ko taalibe bi yëpp wax ne képp koo xam ne mbégam sa béga bu Yuusuf agsee na nga ko ci sant la yàlla li tàmbalee si ganaar ba ci giléem kon loolu mooy li ci sëriñ bi santaane woon li ci des sëriñ bi wax na ko léegi mooy digal ne ñëpp ko képp koo xam ne taalibi nga wala ngay ko bëgg sëriñ bi nga jàngu kamil sant le sëriñ bi boroom sant sëriñ bi waajale ko bis bi loolu nag ni ko sëriñ bi waxee mën naa defar lépp bu ko tuddee ci lam ñëw rek kon nañ gëm ne suñ lépp mën na cee defaroo kon nag ñuy ñaan ñu àgg ca bis ba ak jàmm xam ne bis la boo xam ne bis bu ko ëpp ndax sëriñ bi dafa waxoon ne suñ borom da ko daa da ci daa teg ay nattu ba bis bu mujj ba ba nga xam ne nattu yi jeex na suñ borom xamal ko ne ko nattu yi jeex na sak payi ci des bi fi saa su ak seetee nattu yi daa toll rek ni la xew li toll saa su ak kenn ku ci ne xéewal gu ko suñu borom doon defal rek dana ko fulaat ba mu agsi bi it waxoon ne eh, bis bi buñ demee ba ëllëg suñ borom mi nga xam ne moo bindoon adduna bind guddi bind bëccëg ci kattanam ndax nee na ay bis amufa waaye bu ñu ci bis ba màggalu tubaan daan xew ca adduna kenn ku ci ne da ngay xewul gu dolli ko ci yow daana wax itam ne ñaar buñ dendee kii di ko màggal kii di ko ñàkk a waxtu nekk ci des di seen lu lu ko moroom ji di tiime kon nag bis bi mooy suñu lépp mooy suñu defarug àdduna ak alaxira te sëriñ bi moo bindoon te dara gën te ay waxam wax ne sababu xaybati ana allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafihan li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi muy li li doon a saw wustu kéem bii nga xam moom la ñu màgg tey dara lu may ñaari yëf benn bi mooy daraja ju suñu borom bëggoon mu am ko te mooy al abdul xadim ba ca desit mooy an akoona shafian li xaw mi an akoona xaadiman mi mooy xettali xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gi nga xam ne wax na ne bu demutoon ci tukkeem ba ñëpp daañu tabbi sawra kon nañ xam ne bis bii mooy suñu lépp kon ñuy ñaan ñu ak ja te suñ borom yàggal fi sëriñ bi dëgëral taxawaayam ba ni mu siggale lislaam siggale ko yoonu murit ba la Serigne Touba waxoon ne bokk na ci mandarga mandargam texe mooy benn xool bu baax du ko du ko delloo Serigne bi yàlla def na ko ci moom wa min shaadatil xata xaysu qasat ay laa yurdahu fa adushir asad kon nag suñ yitte jëpp mooy ñaana ko mu yàgg fi ba lim yéenee liggéey Serigne Touba ci lépp bëgg ñëpp defaro li muy wax ne li ma yéene sama bopp laa yéene yëpp fenn ci biir kàddu yi mooy bu soñoon ñëpp defaru bu soñoon ñëpp euh, dëddu àdduna sànni ko te dégg man Sëriñ Tuubaa ndax xam na loolu mooy suñ njëriñu tey mooy suñ njëriñu ëllëg kon nag la waxoon rek ne ne xool leen ci man ñun ñëpp man nañ maase xool ci aw doxinam mënuñu mënuñoo teg fiñ teg suñ tànk fi ñu ko teg nag waaye nañ ko jéem a roy buñ ko jéemee roy rek duñ àgg fa mu jëmoon waaye yàlla mën nañu ci xettile ci loolu ndax moom kat yàlla defal na ko tawféex ndax ni mu ko waxee woon boppam ba mu jugee rek la dëddu àdduna sànni lépp dëgg ma Serigne Touba loolu nag ba nëgg ni kon la Cheikh Ibrahima Fall daa wax Serigne Touba rek boo ko Serigne Massane wàccee mu ne ko Mbàkke de du ma wàcc ndax yaa ñu njëkk a xëy ci toolu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te ma nëgg ni wàcce ko kon na ko xool ci moom fi mu toll. te waxtu nekk boo ko gisee mu gën laa farlu ëpp la yitte ëpp taxawaay loolu ñu topp ci ginnaaw ñëpp war nañ cee laxasaayu roy mu ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum taala wa barakatuhu yasmini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu biya wali نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود كدري